you asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon ni ñu koy defee à chaque fois ndax nee naa leen lépp looleen leen bëgg dañ koy def tey nag ah, ñu ñëw fii nag ah, du ma ne Kër Massar Jaxaay 2 ñëw seet si nag ndax su ma nee Jaxaay 2 Jaxaay Kër Massar ñu ñëw seet si koo xamante ni kenn du ko présenté kenn mu nekk koo xamante ni àdduna la mais nag léegi daf ñoo fekk si ñun ci li ñuy def li nekk na mbër. bu li yi ñu ko doon tooñee naan comédien la mais bu tey dafa ñëw nekk reporter fas yéene du buuxanteeg ñun te mbëri ñuy jël ñooñu lay jël wuli daal gars yi neen dañoo galgal tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ñaari mbir tey nag ñu ñëw fekk doomam muy Henriette muy fête anniversaire am ñu koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla aar ko yàlla sàmm ko yàlla def ko mag mu am ñam ci barki Seydina Mohamed ndax moom suñu doom la doom wu di suñu doom la ndax papaam kenn du moom seetaanuñ ci dara kuy def anniversaire wa yeneen ak yeneen moo la njëkk a envoyé vidéo vidéo boo xam te ne avec amour la koy defee ñu ko ciy remercier bu baax a baax ah, mais wulli ah, dama lay bàyyi nga nuyoog bokk internet Wassare ak ñi xam te ne ñoom ñoo la namm ndax kon ko fan yi moom sa buzz dafa wàññeeku dañoo sa buzz ah xanaa ñu nuyu la rek <laughs> wala maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sant yàlla. Mm-hmm. di Seydina Mohamed sant sama ñaari waajur. di sant uh, sama sëriñ sëñ Modou Xabaan Bakke. di sant sama ñaari waajur sama ndey ma ko ñaanal mu yàgg fi sama baay ma ko ñaanal yàlla yokkee layam tam ci barkeem. Mm-hmm. di sant sama supporters yi. di sant nag sama soxna Sali Dione. di sant sama doom yi ndey Mariam sama taaw. Uh, aari yëpp. Diouf mooy anniversaire tey nga ñëw ak Baye Diop Diouf. sama géwél yi dikk di animé. borom bongo yu neex waaw Abdou Sène mhm. moo père euh, père Bass. Mhm. ñii sama géwél lañu fu ma xewle ba ree fan bu may tuna ñii même sama émission TFM bi. Mhm. maa ñoo ma koy. ànd di demoon nañ si Pape Serre à tëj fa Abdou Sène sama géwél la lu ma xewle day ñëw moom ma tëgg am mbëng tëgg artiste ma mag a mag a mag a mag bu mag la mais sama waay la di nuyu aussi sama xarit ibrahim a Ndiaye oto di jaay oto di ma jox oto xam may dem fu ma neex mhm. di nuyu sama benn waay buy jaay béton suuf muy aada Dieng Ada Dieng parce que anniversaire bi Ada Dieng daf ci jàpp a jàpp a jàpp. dina amee sponsor. non Ada non Ada Dieng gâteau yëpp moo ko jël. sama xarit la suuf lay jaay ak béton. du nuyu aussi ba ba Diouf aussi jaay suuf ak béton di nuyu sëñ Fallou Mbacké transitaire. nuyu Kara Mbodj Fatou Mbaye soxnaam. di nuyu nag Lamine Samba. Mhm. sama xarit. suñu xarit sama père sa lay wax sama père. Mhm. sama patron parce que moom yóbbu TFM ku baax. Lamine Samba lii nii bu ko neexoon du ma ko def. parce que actuellement nii lépp lu may def da koy yegg. Mhm. su koy neexul woon dootuma wax parce que. sama père la ba nga ne ko Fatima ba ma ko nee Fatima la ma ne waxal. fii mu toll lépp lu may duggati dama ko woon ne ko Lamine est-ce que ma wax. Mhm. mu ne ma waxal wa wa ilaa toogal. Mhm. di wax parce que nit nit ku ne foog nga am kilifa. waaw. kàddu yi am na solo mais eh, wulli xam nga da nga defoon buzz wax dëgg yàlla moom. ñëpp di roy si yow. mais wulli wax dëgg yàlla nag borom états uni nee na bu wax waxee borom États-Unis bu géej waaye liiru jaan sa copain. am fi visa États-Unis yéen ñaar ngeen waroon a bëri. ngeen njëkkoon a bëre. combat bi na wala àggul woon. non xam nga man tey bëgg di wax ci ay liiru jaan. Ah. que combat mu nu boole woon. Mhm. Euh, ñëpp sax dëgg na. dinaa war di jox aral ba. la. merci xam nga liiru jaan. xam nga man fi mu bu dee léegi dama nekk ci beneen beneen nit. parce que affaire man ñu béy pour ñoom comédie bi. maa ko tey man. comédie xaw ma sax li comédie man damay wax rek du xam sax. wax bi ni mu neexee gaa yi ne gaa duma reetaan. man du ma. foofu ma di wax. li ma dafa naturel ci man. Lirou Diane xam nga ak léegi dootuma bëgg sax di wax ay waxam parce que xam la ma tax. lam moo nu boole woon bi jeex na. mais comme yow li nga wax dama expliqué Lirou Diane parce que depuis 2000 ba léegi mu ngi ci lamb ji di bëre. depuis 2000. ah moom a a bëre man. te man 2004 laa bëre. soo Lirou Diane maa ngi jëkk ci lamb ji. Mm-hmm. bëri na fi ku ne. mais ci sama combat. ak ma man ak moom. ci la ko Sénégal yi xamee ci la amee visa ci la amee li mu am kon man damay sant yàlla di xam ne loolu lépp ma may ma ko yàlla moo ko may. kon léegi jaar sa tur daal la jaar. non non kon loolu du man de yàlla moo ko def. mais sew la parce que benn fekk Xaadim Njaay demoon na déposé visa may ñu ko mais bi mu amee man coow li démarré. Mm-hmm. Euh, xam nga macha allah ku yàlla àndal moom boo même bu la laay sanga dem. man damay sant yàlla suñu borom te aussi du ko parce que moom tamit ku baax la vraiment. sama xarita dañuy déggante lu bari. xol bu rafet la yoor sama xarita. xol bu rafet la yoor mais yéene naa ko. dina mais bëggatuma wax sax ay waxam parce que léegi bëggatuñu sax par rapport niveau. bokkul niveau. waaw parce que. léegi affaire dof-dof lu. parce que télé site internet ay kilifa ñu seetaan léegi man sax mosuma sax. dof dof lu mais comme ça affaire comédie bi bu baree bëri sa slogan daal la Lirou Diane sàcc ba tra ba kii ci noonu. non xam nga yow di nga siy <laughs> dara xam nga Lirou Diane sama xaaya Lirou Diane tey bu dee euh, comme yéen di ngeen di waxee buzz. buzz mooy lan euh, di ngeen ci si buzz kay ko am buzz kay mooy dem ba ñu jël télé ku amul boos kii doo def loolu ah. ah, ah. site internet xam nga tey dana bu télé takkee rajo na këmëj. mais léegi si internet yi ñoo gën a dox télé. parce que tamit nit ñi amatuñu temps pour seetaan télé tamit. man nit ñi amatuñu temps pour seetaan xam nga man tey. Mhm. yàgg naa ci site internet. Mhm. yaa yàgg naa cee wax. ba pare ñoo la feeñal. site internet man yàlla moo a feeñal. mais site internet tamit da cee bokk sa promotion. non d'accord mais man yàlla moo ma feeñal. man ba may siiw site amut. parce que Mouhamed man ba may am buzz 2007. galaa ba amoon boobu site amul te boobu maa gën xew ay bala ay ay Modou Lo billaay wala tale ba may xew ba may xew 2007 ba ma jëkk xew ma bëre Tidiane Faye na ko dina la wulli boobu benn site amul Sénégal te boobu laa xew sax man yàlla moo feeñal te ni ma xam ne site ak télé bokkul man bu jëkk dana wax si site mais site gars yi dañ lay reetaan rek duñ la dimbali mais télé da ngeen nekk VIP télé même président de de sa télé. TFM mhm. surtout TFM. sama salon bii. télé ma ko may. Eh, TFM. 700000 uh-huh. lay jar. ñu may ma ko. oto ah. may may may ma oto. ah Lirou Diane tamit am na oto. mais xam nga tey man. mais Lirou am na oto. <laughs> yaa gis oto. Eh, nee na am na oto. xam nga nee am na oto man sama oto da koo gis man dégg naa ko tubaab naa ko fépp xam nga tey télé. ak euh, sit bokkunu sit nag am na solo man du ma kenn mais vraiment ku dama ne tey ku nekk star star yi mu fi soow yëpp ci télé lañ nekk macha allah. mais yow yaa ngi Lirou Diane ku gën a nekk star ko da ngaa bëgg a nekk. donc xam nga yow dëgg ma fi pour ay Lirou Diane ku xam nga léegi tey. yàlla instant bi moom wax dëgg yàlla. xam nga yow tey da nga bëgg a ay parce que parce que débat boobu. non xoolal wuli nag. dégg wuli liiru jaan non xam nga non. wuli liiru jaan mais da ngeen a waroon a bëre nag wuli. merci xam nga tey. Uh-huh. comme gaynde ni fi nekk yaaw jaal. Hmm. man man du ma ko nangook liiru jaan xam nga man mbër laa. nekk xale. Uh-huh. liiru jaan gat gat ma gën a ma fukki at. waaw non lam moo nu boole woon. lam bi jeex na. sama xarit la. mais yow nee nga mbër nga kon léegi. mootu noo sax ay non liiru jaan mootu noo bëre. parce que jéemi patron wax na ma ko. man am na combat bu ma intéressant ma ak Adama Diouf. vraiment man moom ak gën a sax dama wax wax wax que li gaan bëri mu bëri woon dootuma bëri ak moom am na combat ak Adama Diouf su ma soxla ñu waxtaan ci Adama Diouf mais dafa xew fan yii na non xam nga. dem na états xam nga te États-Unis ñëw ñëw waaw. États-Unis vraiment da wax ne man boobu dem États-Unis yëpp bu dee. tout mën na ko mais xëy na ku ne ak sa passion. ok comprendre dem daal. bëgg naa dem mais ak ku ne ak ni ngay demee. dem foofu di man du rus naa dem di du ma liggéey man su ma su ma dem États-Unis liggéey moom fa yóbbu. mais Lirou Diane dafa demoon pour liggéey mais. corona non comme ça non comme dëggoo ma de. Hmm. comme comme nit soxla ma. États-Unis ñëw toog fi mu toll maa ngi ciy wax ak moo géej. moo gëy borom Las Vegas. non moom moo gëj ba ma koy xam xam nga man sant yàlla xam. borom Las Vegas ñu koy nuyu bu moo gëj man maa ko di nga xam Lirou Diane. kan moo gëj. yow kon Lirou Diane say kii la. non non nanguwu ko non yow comprendre man tey moo xam kilifa yi may woo sama téléphone. moo gëj jël naa ko fi live Instagram. ok ci corona bi mu dugg commencé. moom dafa may teraanga. même moom sax moom ma jég ne soo ko mbaa Lirou Diane dinaa ko. tëgg. moo gën waaw ñu bokk ak li lii daal mën a fa foofa. mais te état si tey man su soo bëggoon dem la man la moom tey dem. bay dem dañuy dem déposé de ñu may leen. man soo bëggoon a déposé ñu may ma mais actuellement nii man maa ngi liggéey est-ce que fi mu toll actuellement nii maa ngi ci lamb ji mais maa ngi xalaat sama avenir. parce que nekk ci YouTube di wax wax dof di kaf di reetaan nit ñi di seetaan ñu ngi liggéey du YouTube di seetaan man ma actuellement dama jaay suuf dama jaay terrain. macha allah dama jaay béton. nekkatuma fii nag ci télé comme yéen li ngeen bëgg rek jaay seen sit ñëw wuli ne liiru jaan ne lii. mais mais ma liiru jaan nii. mais ba nga ba nga déggoo sàcc liiru jaan bi nu mu la def lii yërëmoon nga ko de. waaw non xam nga li liiru jaan sama xarit la. mais yéen sàcc bu koy génn. bi bu amee yërëm naa ko <laughs> mais mais xaw ma sàcc la xaw ma sàcc lu ko. ci ma ci bagaaru. sama mais ba ngay gis sàcc bi yërëmoo ko. moom woo ma pour ma jël ko téléphone. te li nga ah. pour nga woo na ma nag jël si ma. xam mhm. nga du télé bu nuy wax yooyu quoi. mais sàcc bi yërëmoo ko après. non yërëm naa ko. Mhm. ki ko bi sëñ Fallou Makhtar Seye ma sama doom bii. ah. nga nee ma. may ma ko ngir liiru jaan mais dama dama gis doom ji ci mu tegu ci télé doom bi wax. sama yëpp daw ma may ko mais man samay doom xalaatu ma ne di gën a ci télé ñu ñaan xalaat ma loolu parce que àdduna day dox. parce que loo gis rek boo xoolee mbay géey du ba lees seen temps bu amoon YouTube rek mën a toog télé gën a sa doom muy wax man sama doom xalaat ma ko yow sax parce que parce que na nekk ministre ba wala mu nekk leneen quoi. adna dafa dafa gudd tànk waaw parce que man dama fonk njaboot aussi si mhm. sama doom moom même buñ ma sàccul milliard du ma mukk dina ko ci télé muy wax mhm. non du wax du ñaan non sama mhm. parce que tey ki ko may sax day am yërmande pour may ko ko te bëggoo ko la yërëm mm. non ak ñu lay yërëme quoi waaw gis lu bëri Tyson li tax mu latewul man actuellement nii dama am ay sponsor yu ma bëgg a publicité sama image wo la te mais xam nga tey liy jàpp chaque jour mu ngi ci YouTube bi di wax sponsor yi duñ la soxla parce que chaque jour ñu ngi lay gis. day latte quoi. yow yow yow xam nga bës yow fi mu toll nii am na ay publicité yu ma contacté ay sponsor yu mag pour ma publicité leen léegi. mais moom tamit day publicité la ne. man ak man ak njànku léegi ñu publicité. waaw ah, waaw ñu koy nuyu au passage suma frère boobu njànku. xam nga man tey boo xoolee. Mm. xew mooy xew xew mooy kuy teyaat woo la mu neex du muy Abdou Diop xaas du muy def séeri daf saa neex woo ma njànk ma képp kuy def séeri si Dakar xanaa man sam may xaw a bañ mais képp kuy def séeri daf may woo dem rek waa Marodi woon nañu ma pour bën séeri loolu mooy xew yow mais nekk ci bi rek di fecc ak wax wax kii ñu lay xam nga tey man man su may ànd ak yow mais bëgg nga avancé man tey Lamine Samba wax dëggu si yàlla dama koy sant nag Fatima parce que bi muy ànd ak man xam nga nit ba ba nag moom doo ko doo ko rek teg di ko jël di ko reeloo muy reetaan mu am njaboot am lépp doo ko jëriñ dara tey man Lamine Samba wax dëggu si yow du sama. photo yii Touba Ameublement ñoo ma ko may dem naa bu rek ñoom. bilaay walaay 700000 lay jaar. Mm-hmm. kon léegi boobu mooy ci gën a waay ma ci gën a. Ah. a. parce que léegi non parce que comédie du comédie c'est keroog boo demee ba en tant que ministre de sports Matar Ba da nga keroog li mu wax mm-hmm. mu ne wuli man maa ko bëgg a ñun ñoo ko bëgg a suñu bopp parce que même boo amee trop brem sax boo ko dégloo da ngay reetaan loolu mooy star <laughs> yoo xam Ba dama def benn suuf benn vidéo barki yàlla nee na ma ministre yi nekk ci gouvernement bi ñëpp ma ma ko am waaye loolu mooy personnalité. vous mm-hmm. comprenez mais sax su nga ne fii tub bi gars yi du xool kilifa yi du la mais man macha allah yàlla booy na ma kilifa yi ay Mamboy Diaw. Cheikh Tidiane Ba. ministre Omar Youm. ministre Matar Ba. <laughs> yeneen yeneen ak foofu laay. mais Batika ak Lirou Diane ko ma ko Batika bëriwul. ndax ko damay set na ko pour jox ma ko mais Batika bëriwul. mais ma yaakaar yaa daw combat ba. non man du bëgg ma sax Batika est-ce que xam nga ne. moo tax damay sant yàlla. man wuli di santaat yàlla man ku ma wax rek nga xew. ba tikab gambi laa bëre nu laaj ma ci moom ma wax ci moom rek mu tontu ma am bës barke Mouhamed. Hmm, kon ba tikab kenn xamu ko woon barke Mouhamed. billaay walaay talaahi dama gambi laa bëre nu laaj ma ci batika ma wax ci batika tooñ ko quoi ay parfum lay jaay dafa xew yi da nga da gën tontu ma ñëpp seeti ko mu def bës. loolu neexul ko waat mu am boo sax ma léegi moo tax léegi. doot dootuma wax xam nga tey Fatima yàlla sunu borom man yàlla bu la taalee kon mën naa fay dina taa bu yàlla taal. sant ak ma gën fay ko. tey ay comme nga sa site internet na tey damaa bëgg a xewal kii gis ngeen nit kenn mënut a xewal boo bëgg na xewal ker yaa nga fexe nga xew. comprendre nga kenn mënta kii tey dinaa ko jàpp pour mu am bës yow mi koy bëgg a may bës yow yow am bës boo pare comprendre man bës bi ma yàlla moo ma may to xam naa ne bi yàlla moo ma ko may te xiiwal la yàlla mooy may lii nii xool du sens parce que sama bay ci sama del la ne mm. kon daal léegi daal génn nga ci euh, pour yi ñu suivre sur Wassare Lamb wulli génn na ci camp Batika ci camp Wuli Diane Liiru Diane léegi daal comme que yow léegi personnalité bi ak seen liggéey daal da leen di bàyyi ak affaire bi. oui ba daal nag comédie bi parce que tey sama liggéey TFM nanguwuma ay nekk fi di wax waxi dof di comédie mais nag man dama comédien man ni may waxe mu neex nit ñi tëyuma ko yàlla moom ma ko dogal yàlla moo ma sàkk bin ma ma dër bin ma man saf nit ñi loolu du question comédie du question di fasaloo mënul nii may waxee nii. naturel naturel la te kilifa gu nu seet laa ngeen keroog Lamine Samba bu ñu demee sa sa sàll daf ko ne buli téye ko boobu sinon gars yi dañ koy recruter dama dem ci benn kilifa bu mag mag Lamine Samba sëriñ bu mag sëriñ kilifa gu mag nga xam ne télé du caaxaan kilifa gi ne Lamine Samba kon nuyoo Lamine xamul ne sax kilifa di desaan lam mu ne ko xama da waaye les cinq minutes de wuli moom buy pay rek may pay ci télé bi xool loolu eh, barke moo xam kilifa bu diine sëriñ nga xam ne kilifa diine sax ñu ngi lay siifur te ñaanal yàllaay may Abdou waxal ma loolu ey eh, wax leen moo lii neexul moo lii neex na moo lii neexul Abdou lii neex na waaye aareef lii neexul waaye aareef lii neex na Sëriñ Sali lii neexul lii neex ku bañ li yàlla dogal di nga sonn jaxle kenn du faj sa dara leer nga ne yéemu naa ci buur bi yàlla dalee digal bi neexoon. mais mais ñii dégg luñ la wax. xam nga yàlla xam nga yow sama waay ga est-ce que xam nga ne sa interview bi sax dama waxoon ne. dama ko def mais xam nga aussi gars yi nekk ci YouTube bi dañu may nam. dëgg la dañ laa man ñoo na ma sax seetu wuñ la. YouTube bi xanaa xam nga ne man gars yi nekk ci YouTube bi man dama parce que man si sama siif ba pare wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa sama sid la. man dama dama am sama sid nag doo fen wasaay sama sid la. jiili ba wasaay di doog gën la ma woo ma fekk la Gàmbi ba ba ba Basiirou Diouf aussi ma bëgg ak sama bopp. parce que sama doom bàyyi la nag. man maa ko bëgg ak sama bopp. kon fii nga ñëw foofu la. sama waay nga. ñoom xew. daaw bi nga fi <laughs> bi ñu suyee seen série bi dañu maa woo. non yow la ñu Saara duñ def dara xam nga pare yow. yow yow ñëpp say waay lañ. c'est que am na am solo c'est a am na am solo loolu laa wax ñëpp. kafa fi am reetaan. Mhm. man duma ma jaay succès xaw ma ko sax aw ma ko. du ma jaay tiitër. Mhm. man xaw xaw ma sax yaa ay boos ak xew mhm. man. naa mënoon laa xew mais xew nag liir jaan daa muur nag. xam nga moom jaan yi mi teg ci xam nga moom jaan xam nga moom xam nga moom li mu bëgg. li mooy mu attaqué liiru xam nga liiru. non waxuma mais gis nga jaan yi xam nga tamit nit ku nekk da nga koy da nga koy kii ndax liiru tamit dafa xew jël jaan jaan mi jël di ci kii yi jaan yi. gisul jaan yi xam nga loolu lépp mooy bëgg xam nga tey <laughs> bëgg ma wax. mais mais mais non non xanaa gisoo jaani tamit yi muy jël di ko teg ci kii jaan kan moo ko moom jaan yooyu xam nga tey ay dem si sëriñ bëgg bës xam nga tey yooyu yëpp pour bëgg man daa a mënuma tontuwaat xam nga man man mënuma waxteeg Liiru Jaan parce que Liiru Jaan vraiment day sama xarit léegi mais bokkuma ak moom Liiru Jaan màgg la li ma koy ñaanal mooy mu fexe seere avenir parce que am na njaboot ah sama xarit nag dama koy conseil mu fexe yor seere njaboot ah dem États-Unis ba mën a liggéey mu liggéey bu mënu liggéey mu ñëw fii ubbi lu muy daan doole parce que mag la te lee mu arrêté la. nekk ci télé maanaam yooyu yëpp ay yooyu jaar su ma sax sànn ma ko. Mhm. bi lay wax man man ma ci am. <laughs> waaw baax na dafa xew. yow fi andi. Ah, xew xam nga sama nit nga te ah. sama bébé mooy anniversaire <laughs> ah. sama bébé mooy tamit mais liiru dafa xew. xam nga tey. concurrence boobu lañ war a dindi jàpp liiru dafa xew di ko xam nit nit yaay nit dañ lay dofloo comme dafa xew la mooy xew nit ki bi di wax waxi dof man su ma neexoon sax su ma site internet site yëpp sama xel lañu ne Sénégal nga su ma neexoon yow sax su si ma mais yooyu du personnalité man ci télé bi may nekk ku nekkul ci ma doo fa dugg yuusu Ndour du n'importe kii teleem bi man bu ma neexoon yuusu nduur ba ba ba set la Lamine Samba wuli na arrêté. Mm-hmm. maa ngi fi dégg. Ah? keneen la fa ñëw di wax waxi dof mbala muy def di daan di daan na kii arrêté mm-hmm. mais Lamine dama andil TFM tagguwul Youssou Ndour. bu Bouba Ndour kontaan ci Ndiaga Ndour. Birane Ndour chaque jour day laaj Lamine. te ba ana wulli comprendre loolu mooy xew dem télé bu mag to bi ma nekkee si FM Saliou Khoulé ah bu bu Bougane Gueye Dany dafa doon kontaan lii jàpp fan nga ko mos a gis moom nag ci télé di animé. est-ce que nekkul moom moom moo moom moo bëggul loolu. gars yi ko. non est-ce que liiru woo bañ a bëgg moom bi nga ko sax woo na ma ne ma jël bi. bilaay la ko kaay ma ma wax. nga ne ko lan. ma ne ko non yooyu ma pare ma taggu kilifa yi non non. Mm. yow yooyu non télé bi du pour yooyu. du affaire comédien ah,